ma marsiyaat li say xanaa ma samba su dudul Cheikh ma sàmba si yow ba ku fi ma toogal Cheikh ma sàmba rek am na ngërëmam waaw waaw da sama siis sama siisu waajur gi xaw ma dinaa si toog wala waaye fu ma tool danaa ko fomp def mu dëgër ba ku fi toog rek daa mat li Cheikh ma sàmba àttan ba mu ñëw nag doon Cheikh ma sàmba rek Cheikh ma sàmba feeñal si moom loo xam ni feeñalu ko si ñu ko jiitu bari na nañu ay ñu jiitu bari nañu ay cër lool waaye daaru kërim bii moom la ko yàlla defal ak leneen ak leneen ak jumaamam ji mhm. waaw mhm. waaw mu def si loo xam ne kon nag kontaan naa ni ngeen def seen kër yi wax dëgg yàlla euh, waaw man sax tàmbali naa ah, waaw waaw commencé naa yëkkati waaw waaye nag dama bëgg nag bala ma yëkkati ma pare sëñ Maamoor jox ma xab euh, jox ma ndigal ma song sama xabru sëriñ ba sama sa xabru sëriñ nag pare nag may sooga a mhm. waaw waaw dama dëgg dama bëgg su yàlla dimbalee mu terminé lan daan def Touba rek fii man ñu bàyyi maag cérémonie officielle bi may recevoir gan yi gan office suñu jugee ci rek comme xam nga Touba danaa jóge cérémonie ba danaa jóge cérémonie ba ñëpp ñëw sama kër temps wu Ablaye après ah, temps wu président Macky Sall la mu fa toog yëpp may recevoir ay ministre ba yëpp te waaw waaw te booba te booba euh, booba ñun taalibe dong lan ko defee waaw ah, waaw yow yow yow yow nag sëñ bi daf nu boole ah, waaw waaw sëñ bi daf nu boole boole googu nag mm-hmm. moo tax mënuma wër njabootu Cheikh Moustapha yëpp waaye nag ma tànn ñi nga xam ni dafa am loo xam ni particulièrement sëñ bi def na ko suñu digganteek moom moom suñ benn boole nga jël sa alal jël sa temps jël sa lépp wane sëriñ wane sëriñ Moustapha sa bëggu sa waajur si man waaw daan na ma wax ni ma Madické ku ma bëgg ku nekk war na la bëgg ni ma koo dégg ku nekk daf ma taq wala daf ma sori te di wax si yow loo xam ne demewul noonu jàppal ne kooku jubuwuma waaw mm-hmm. <laughs> yow la du yow la ñàkk jub du yow la ñàkk jubu de mm-hmm. waaye man mii la jubuwul mhm. loolu xam nga ni mhm. euh, fa la wax man yam yow nag matal nga ko mhm. sëkk yow sëriñ Bas sëñ Bas ab am naa mbégte fekk ka fi waaw te ni mu nekk sa wet ànd la rek doon benn say da ngeen di def da ngeen di def ay étage ba àgg sa étage ba sa kaw nag yéen ñëpp ngeen daje fa fekk na fondement étage yëpp premier rez de premier étage deuxième étage yëpp nag yëpp dëgër ba nga xam ni su ngeen demoon sax ba cinquième étage foofu dana fekk lépp dëgër waaw mooy seen biir di dem di dem ba sëñ Axma mu fee sëñ Moustapha mm-hmm. lépp nag ñëw daje si loxoom nag mm-hmm. waaw waaw jërëjëf sa jërëjëf lii rek lañ si bëgg daaw baay kon day mel ne suñu way juro toog di suñu mag di suñu xarit sëñ Moustapha comme ni mu ko waxee boole woon ñu dëgg la ñëpp la sëñ bi njaboote waaye moom sëñ bee jàppoon sama loxo jàpp loxoom boole ñu man nag ku xam-xam ne lu neex sëñ Moustapha rek lay wut bi ma xamee ne boo defee ma diggal lu ko neex mu neex ko boo defee ma diggal lu ko naqari mu naqari ko moo fexe ba lu may def rek lu neex ma diggal lay doon ndax mu neex suñu Moustapha loolu laa doon dàkk loolu sant naa ci yàlla ndax am naa ci jaajëfam moom suñu Moustapha nee na ma ni nga def ma digg sant naa la ci gërëm naa la loolu laa doon sàkk alhamdulilah bi ma ko amee boole boobu itam moo waral tànk yi ndax comme ni mu ko waxee rek maguma ci kër gi bari nañu ba bari ñoo xam ne ñoo ma mag mën naa am xëy na jotam du ko may àgg ci ñëpp kon bu ñëwee fii boole googu ñu sëñ bi boole woon rek lay feddali ma ko ciy sant itam ndax bu ko neexoon mën na ko bañ a def waaye bu ma ko déggee ci dëkk bi man fu mu nekk ma fekk ko fa kon nag bu déplacé wu ba ñëw ñu ngi koy bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi gën koo wéral yokkal ko ay xéewal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Massamba bis bi itam lu ci nit di def rek mën naa ne moom nga koy defal ndax ba mu ko tàmbalee di def ñun boobu mënuñ ci dara kon lu ñu ci fekkaat di ko ci def rek moom lañ ci jàppale ndax bisub sëriñ ma jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax ma marsiyaat li say xanaa ma